Saneex turam dëgg-dëgg di Seexu Gey ana kan moo bëgg a xam lan moo indi tur bi di Saneex déglu ma ki di xaritam di Aziz Niane bok ci troupe bi nga xam ne troupe Soleil Levant moom ko tuddee lii di Sanekh d'après ben personnage théâtre bu tudon san mom sanex nak mi ngi fi di diwanu Thiès fofu la yaro fofu la màggee mom sanex du gëna école waw waye sanex école bi mu def école alphabétisation la en olof après mu def nak école sauvegarde de Thiès fofu la défé li nga xam nak moy ministère métallique industriel di liggéey nak ci li nga xam nak moy forage ci zone Fouta bi mom sanex lu ko duggo ci théâtre du dara nekul lenn du li nga xam ne ay mag ak ay xertu magam ñoo yoron ben troupe bu tudd foofu noonu si diwaanu Thiès Sanekh nag di leen gis ñuy joué seen kanamam ñu répété xam nga xale dafa mën a copier Sanekh ba mu gisee loolu nag Sanekh copier lii nga xam mooy théâtre ñoom ñoo ko duggal si lii nga xam mooy théâtre ñoom ñoo ko formé bu baax a baax ginnaaw biñ ko formé nag Sanekh ci la daal di ci lii nga xam ne nag moom mooy troupe bi waaye nag dibi bi métti woon na torop ñaari fan am juróomi fan foo ko teg tax ba tey yaa ngi jàpp naa ma juróomi fan juróomi fan juróomi fan juróomi fan yow li li mu demee mu yaa ma ne woon ñaari fan laay def. séet bi dañ koo yab dem ba ba bay dugg Tamba séet bi wasin ci biir kaar bi. ah wasin. séet ba. <laughs> doom ju xonk coro la wasin ca biir kaar bi. maa nga wax lii boobu kay ñu ni cii ah. na nañ dellu Cees ndax gii gàcce gàcce gu gudd a gën gu gàtt nañ dellu ci dégg nga mhm. gars nañ ko yóbbu noonu dégg ñu àgg négociation ba pour xale ba des ca jël deux jours dégg nga ndax du mën a faciliter noonu dëkk de mujj accepté ni moom bëgg na noonu nga xam nga ne góor ñi moom bu ñu xësee ba bëgg te te te te te dofuñu te boobu seen bëgg day daal di des lii moo fa parce que booy def nag dara ñu bëri du la ci gëm Sanekh daanan ko woowee sax le mu nekkoon benn surnom bi nga xam ne nii du ko mës a fàtte waaye dafa nag di baax a lii nga xam ne mooy théâtre am dëgg la boo nekkee xal théâtre dañ la théâtre bi dem moom lii nga xam ne nag moom mooy groupe bi waaw groupe bi di dox di dox ñuy def ay théâtre communal di def théâtre foofu noonu ci ay entrée yu yomba yomba yomb ñoom Sanekh di dem di dem di dem ba jamono di neex di neex nag ci troupe buy juddoo rek troupe soleil levant troupe soleil levant ba mu juddoo nag mu nekk benn troupe bi nga xam ne nii nag ñu commencé ay théâtre yu bëri waaw kenn du leen nital théâtre Sanekh yi bëri na lool lool lool lool lool yéen a ngi fàttali ko askanu lawbe dem ni wëli naa la jox sa xaalis parce que ma ko yéene de Binta dama jëli xaalis bi yaa moom dama jël sa yëf nijaay du ma ko jëli xam nga lan la wallaahi billaahi wal kitaabi leer na borom daaru moxti ni barki borom ndindi xaalis bi boo ko jëliwul ma yàq la. waaw noo ma yàqe. xam nga nu ma la yàqe. billaahi boo ko jëliwul ma fase la. nga jaar. na njaag ñëw. nam mu ca yóbbu ca ku la ci ba max nga jël. par exemple. damaa sonn. tay dam dee. c'est comme ça. waaw. ñaan ma baat. ñu jaay may ma sans baat. Eh! ci may ma sama baat danga may mbeuk sedd na ah waaw bi ta ñaanam ma baat may ma sama baat laa <laughs> mbak nga njag waye jaag ñewul te di dina la xoma ndax japp li toj ñam jere tax billahi barki serigne isa genn boom genn ak la gën la wax bu ñuy julli tisbar may yor njàpp boo ca jaaraatee bomb bi tak sa kaw billaahi allahu akbar théâtre boobu tuddoon saa neex moo tojaange tolof tolof bala may sa obama paa ak yeneen su ma koy lim sax yaakaar naa ne fii laay fanaan ndax Sanekh li mu jiyee si théâtre dafa bëri a a loo wax lu dul Sanekh kenn bëggul maanaam groupe bi di Soleil Levant dañ def chaque année wala weer ñu génne lii nga xam ay théâtre yi nga sénégalais yi dañ ko doon bëgg jamono cassette sénégalais doon xaar bu baax nga groupe Soleil Levant Same goes broad. l'élevant moom Sanekh di ko def di ko def ba si yàgg nag ay série commencé xew yéen a ngi fàttaliku série waaw foofu nag la sénégalais yi beneen version Sanekh maanaam Sanekh dafa ñëw wane di bokk si ay série yu bëree bëri bëri li ci mel nag ay ndoguli ay koor yu bëri Sanekh di ko see Sanekh nag bokk na ci ay production yu gën mag lu ci mel ni Bois de ak lii nga xam nag mooy une place dans l'avion moom Sanekh nag ñëwaat nag si jamono jooju

international ndax nag artiste complet la moom Sanekh dañ koy gis à souvent nag muy def lii nga xam ne nii nag moom mooy ay caravane maanaam di jàppale ay néew di doole moom Sanekh nekk acteur bi nga xam ne nii kenn doodu présenté fii ni ci diwaan Sénégal jeex na ku ñu ko gën a salaam ah. wure wure waaw cagin ca waaw ah ca wure waaw giir wurat ah la tata sa giir ci ndaar wurat giir su gata Zaki sha. Ah, das mbak tignoris. murah sagi. Sabara sada sada sagi kiga ya murat gi. Tabura sagi. Ah, murat. Ah, dere. Gi. Das mbak murat gi. seen daane lu ñak ndax lu mu liggéey lu mu rampe jamono jooju noonu jamono ji nga xam ne nag may wax ak yéen ba tey ba tey mi ngi taxaw série boo dugg rek mu dem day jee ci marodi day jee ci even prod eh? kii nee de. sa baay ma gëna neex ak sa yaay. sa baay ak sa nday ñoo ma gën neex. boo ma nee tey yar woo ma noq la ba nga day. wala ma wote wa koñ bi ñu ñuusal ma la ba nga yàq sa dubay. imbécile. romb ma fii. nuyu ma nuyu wu teggine. ne. lu dul ma père ni fes. ñëw sama kër heure sama dom di fóon. yow loy bi waate. papa eh dëjë salaam dëjë salaam danga bëgg ma rey la. père kii kii ça va woon. yow ya gat yow nga yor laxi bara mencha. laxi bara mencha da def ni sa donné à n'importe qui muy fóon sunu lex. mais père yow raciste nga de lan moo fi indi ay mbokk bara mencha géew eh, géew la. eh eh booy. lu ko fi jaar. lu tax ngay biis sama doom. mais biisu lu ci nekk. ah dara nekkul ci biisu. Ah, dara nekkul ci. alma sa yaay. ma biisu ko. Ah, père nag ah, wuy ma. wuy ma wuy ma wuy naa sa kii ak sa béjaay mais sinon naa la def lu soxor yow. boo nga xamee ni damaa bejjaaw nga waroon fee ba sama doom ah yow daal biisu sama doom amul problème waaye pour ma biisu sa yaay am na problème. sekkuma ak yow loo may wax. waaye yow loo seq ak man bay biisu sa doom. jama man maa ngi dem ko sarangooñ yi nekk ci parce que dama jooy ci booy. jooy yaay jooyal sa yaay jooyal sa yaay ak sa baay ñu wuy yàlla nañu wuy ji jooy yaay ma xoo ko ful tas. Eh. su ko ful jooyal say parents imbécile mu naan jooy. cuutu naa la wang yàlla na la sa waa kër tuxu ji yàlla na wuyu ji doom wuyu bàyyi wuyu yii ñii duñu ay bala may ca lan nga mais papa lan nga mais père man bu set laa moo tax nga bon moo tax ga bon ñun duñ laal géer tuxul tuxul tuxul kii ci la ci biir père yow ci biir ci biir fi ñëwaa lexu bala may sa du lexu booy damal lu damal gat toppal fa nga wo yow da yëfi yàlla nga football nii day gérer fi nga xam maison de production yi mag Sénégal yëpp gérer ko saa neex nag oyof gi ma oyof gi day wàcc sax di gérer ay comédiens yi ndaw lu ci mel ne ñoom ñànku ak ñeneen ñi nga xam ne nekk ñu ngi waaj ñëw kon mel nekk saa neex may loxo ñooñu nga xam ne nii mooy artiste ndaw yi wala da ngay dee kii moo lay fóotal say caleçon damal deewal yow caleçon fa ne ak la mu say caleçon yow ak ni ma la xamee yow lu mu néew néew néew néew néew néew di nga sol caleçon trois jours rëddu farata nga ñuul kub nga boole koo kulis korof yow àq gi nga ameel waa mbedd mi métti ameel àq sa yaram wi booy caleçon bi tilim ngay wokkatu mel ni ko kosa kosa te tilima lay bëgg a rey imbécile bi daalal sa bopp nga boole doxot yeeg xayli yi ngay bàyyiwaale ci biir xam ne say caleçon bu ma ko fekkee ci ligne bi billaahi mbàqu xar laa koy teg ndax kotamu gi muy kotamu caleçon yow yow ku la suturaalul sax nga suturaal sa bopp boo duggee ci douche bi di sangu jàmbal say caleçon fóot caleçon daa sori ci ci ci ci borom bi. loolu laa doon def fa caleçon ne bu ma amerde boo demee ba amasoo caleçon boo sol nga tëmbal. nga tëmbal nii sax. yaa xam na batal batali wet bu ne. mbindaan mu am fulla ak fayda di liggéey ci kër sax warul fóot caleçon. ayo ah, ki ngay fóot lay caleçon kan yow ñu wax nga di ko dóor moko def ya ñak jom tay nak saa nak la leen indiloon di ko ñaanal gudd fan ak wér yaram mu yag ñoo bégal kon nak fi lañu yema ak ñu leen di wax ni bu leen faté abonné té bëss kolos de notification bi té ngeen wax ñu ci commentaire yi yeen artiste ak yeen star ngeen bëgg ñu indi leen seeni jaar jaar kon nak fi lañu yema ak ba benen yoon ak authentique pro